allo. waaw allo oui. waaw. nuyu nañ la sëñ bi. ah waaw maa ngi lay fay maa ngi lay fay. waaw jàmm rek kay peex. sant yàlla sant yàlla bu baax. jàmm rek euh, gis nañ info yi. waaw bëggoon laa laaj euh, naka yaram bi. maa ngi sant yàlla bu baax. Mhm. bu baax a baax sant Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Abdou Khadir Mbacké. Mhm. jàmm rek. Mhm. est-ce que mën nañu revenir euh, sur les faits naka la demee. ah naka ni mu demee moom dogalu yàlla yàlla mooy dogal yàlla dogalam jàmm mënu ci dara yàlla ay dogal yàlla dogal waaye yàlla mi dogal yàlla musal nanu sant yàlla instant yi nii fan ngeen situé woo ñu ngi ñu ngi ñu ngi wër a soog yi hmm, d'accord mais sant nañu bu baax a baax Abdoulaye Diouf Sarr président ko mi ngi fi jàmm ñu hmm. sant ñu sant yàlla jërëjëf kon yàlla na jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. allo. allo waaw jërëjëf waaw jërëjëf merci beaucoup.